dal leen jàmm ci xibaar yéen kaay yi ñu xëyandoo ñu ànd yër yéen yi nga xam ne nag moom la xëyandoo lubi nag la ko suub moo ko gën a ñuul yéen bi Sud ko di xam di ñu xam ne nag moo di résultat ya jamono ji ma nga ca tiroir yooyu mu denc yéen kaay bi di Sud Quotidien yi di ñu xamal ne kay jamono ji ñi nga xam ne nag ñoo di société civile bu Sénégal ña ngay dox tànki jàmm ak ñenn ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu aada waaw jamono ji nag dem nañ seet yi nga xam ne nag moo di maître Abdoulaye Wade ba ñu eggee Abdoulaye Wade kàddu yi nga xam ne nag yëkkati na ko daal koy jëmale ji moo tiital nguurug Sénégal waaw moo leen andi ci ak jéex a jaax waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne nag Macky yëkkati na ko jamono ji réewum Sénégal mën nañ cee séntu jàmm wala sax képp koo xam xam nga andi aw ay ci Sénégal ñu daal rëq sa ndigg yéenekaay bi di Vox Populi di ñu xam ne campagne boobu nag gannaaw fukki fan ak xam ne nag amal nañ ko jamono nag candidat yi nga xam ne ñooy laaj réewum bu dee Macky Sall nga xam ne am na ko ngir liggéey réewum Sénégal mu daal di koy mën a sottal bu dee nag Madické nga xam ne ne moo di Louga foofa nag meloon na ni dege maanaam rajaxe naa ko bu dee nag ki nga xam ne nag moo di Ousmane Ousmane moom Sonko Sonko bi yéen kaay bi di ñu xamal ne moom Ousmane Sonko koy jamono ji ab campagne da koo ajoon démb ndax kenn ci ay militant yoo xam ne dafa jot a ba mu ngir fas yéene ko wëyal ñu daal koy jeexale ak yéen bi di source a di ñu xamal ne kay démb kay ci dëkk bu sell bii di Touba waaw Daaru Xuddoos benn waay la fekk mu faatu ci ab foos waaw askan wi nga xam ne nag moo nekkee foofee mënuñu woon xàmmee sax waaji ndaxte moom moom dafa yàgg police yi ak sapeur pompier yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee ñëwoon ngir xool mbir mu ni mel ba ñu egsee nag ne ca la ñu tàmbali di gas ay pax fa seeni ko denc fi nga xam ne nag foofee la faatoo waaye nag askan bi nga xam ne ñoo doon yeewoo foofee ca Daaru Xudóos nanguwuñu woon ñu ñu suul ko fi nga xam ne nag foofee la waajee génnee àdduna